mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf cànn bi ak réew mi FM daal jàmm ci seen émission démb ak tay ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu wi démb ak tay nag xam ngeen ne lu ne lay waxtaanee euh, rawatina nag euh, lu am njeextal ci réew mi mouvement des entreprises du Sénégal MEDES bokk na ci ndax kuréel la gu jabootaay entreprise am taxawaay bu mucc ayib ci Sénégal euh, mouvement booba am ñaar fukki at ak ñett ndax euh, xam ngeen ne démb ci samedi bi la ñu doon def seen ñaar fukk ak ñetteelu euh, session assemblée générale ñu bëgg caa nag prox ndollu waxtaanee booba kuréel kañ lañ ko taxawal nañu ko taxawalee fi mu jaar ba yegsi fii ak surtout euh, concept yi mu taxawal euh, ak ci li muy yëngu ngir euh, am njeexital ci ci askan wi ñu am mbégte nag dalal ci secretaire général bi monsieur Modou Mboup ñu ngi lay nuyu di la dalal ci démb ak tey. maa leen di fay. Mmh. ni ma ko waxee uh, bëccëgu jàmm mhm. ñu ngi la koy ñaanal yow itam alors ni ma ko waxee MEDES am na ñaar fukki at ak ñett ndax mun nga si waat ci uh, kuréel googa na nanu ko sosee fanu ko sosee ak lu waral surtout ñu taxawal ka uh, jërëjëf donc ci boobu ci question bi dinaa sawar trop tontu ji gannaaw bi ma la nuyoo nuyu si say collaborateur collaboratrice Euh, MEDES en fait moo tekki mouvement des entre du Sénégal mooy benn kuréel goo xam ne dafa ëmb boot ñi nga xam ne ñooy entreprise fii ci biir réew MEDES nag ñu ngi juddu atum 2000 donc booba ak léegi mën na ñaar fukki at ak euh, ak ñett bi juddu. boobu dafa nekkoon ay ndaw ndaw yoo xam ne ñu ci bëri ci ñoom dañoo génnoon dem bitim réew ah wuti alal kenn jëm bitim réew di fa euh, a yëngatu mu tombé nag ak première alternance Sénégal Abdou Diouf donc euh, euh, génn bàyyi nguur gi Abdoulaye Wade jël ko ñu ne nag ah nañ dellu Sénégal ñi nga xam ne si ñun am nañ tuuti koppar. jéem booloo tabax ay entreprise ndax mooy li nga xam ne mooy jëmale réew kanam ndax moom mooy investir mooy créer liggéey mooy jox ndaw yi ay xëy mooy àndal ñàkk mooy pousse ñàkk ba ñàkk ba ñàkk sori mooy suuxal koom-koom donc yooyu xarit ñëw tudd seen bopp à cercle des jeunes entreprise du Sénégal moom mooy mbootaayu xale yi nga xam ne dañoo bëgg a yëngu yëngal seen bopp yëngu liggéey ci biir réew mi donc ñu créé ko mois d' avril deux mille ñu créé boobu cercle taw ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg soobu sóobu ci entreprendre cercle rapidement ñu bëree ba gis seen bopp ñoo xam ne sax du ñu ay ndaw xawoon nañ am tuuti ay at ak ñoo xam ne mosu ñu génn Sénégal Sénégal lañ nekkoon di fi liggéey waaye nag amuñu woon kuréel kuréel bu leen tey bu ñu mën a dugg bu ñu mën a bokk pour sàmm seen intérêt pour lëkkaloo pour jëmale Sénégal kanam donc ñeneen fekk si ñu bu cercle bi commencé nekk lu yaatu ñu ne ah fi mu nekkat bi ñuy juddu dañ nekkoon cercle day yéen maanaam mbootaayu ay xale waaye léegi nag comme màgg nañ bu gaaw a gaaw a gaaw dinañ soppi tur bi du tudd ko rek mouvement ak loolu hmm. woon noonu man noonu ko soppi rek tudd ko tudd ko tudd hmm. ah. alors lan moo motiver création wam parce que boobu amoon na fi ay euh, organisation patronale yu fi nekkoon yu leen mënoon a hmm. boot mais euh, lan moo waral yéen ngeen taamu woon euh, président Mbagnick Diop notamment ngeen taxawal seen kuréelu bopp. effectivement amoon na fi ay kuréel ba fi nekkoon doon liggéey liggéey bu bu baax avant ñun ñuy créé mën nañ cee cité CNP mën nañ cee cité CNES mën nañ cee cité UNACOIS ak hmm. waaye dafa fekk boobu bokk ci yooyu kuréel daam ay sart sart hmm. yoo xam ne dafa xawoon a jafe dafa xawoon a dëgër hmm. ba xale yu bëree bëree bëree bëri bëggoon na yëngu ci affaire entreprise amuñu woon condition pour bokk ci ci CLP. ndax condition adhésion yi condition cotisation yi extra yooyu yëpp. Hmm. dafa nekkoon ne loo xam ne dafa jafe ci ndaw bi door a jóg. ñu ne nag ñu neen créé certificat boo xam ne pour ñun la ñun nga xam ne ñu ngi door a ñu ngi ngi door a jóg. Mm-hmm. te aussi woo ci woo ci ñëpp mën ci mën ci adhéré. Mm-hmm. ndax mën nga adhéré seen fële FNES. Mm-hmm. te doo mën a adhéré euh, ndax soo adhéré euh, ak euh, MEDES da nekk d' abord tout simplement nga am entreprise officiellement reconnue nga am ay activités reconnues ngay fay say euh, say impôt yi nga xam ameel euh, état bi. Hmm. su defee nga bokk même soo di benn nit nga. Hmm. or ya organisation pour bokk ci d' abord duñ jël kenn directement. Hmm. amul amul addition teg. d' da ngay bokk d' ci benn branche professionnelle ba pare. boo branche mën a adhéré organisation bi. mënoo nekk rek eh, dans dans économie numérique ci liggéey yoo rek. xëy na maa ngi def adhéré CNP mënoo ko wala maa ngi def adhéré CNP mënoo ko foog nga ko d'abord optique benn organisation bi nga xam ne moo lëkkale nekk économie bi pare mm-hmm. boobu organisation moo mën a adhéré CNP ñun nag ñun ñu loolu duñ ko def nañ def organisation boo xam ne kenn ku nekk ku mu soog individuellement yow sa bopp rek findum mën nga ñëw ak mën nga ñëw adhéré mm-hmm. donc loolu moo moo yombal nag adhésion bi. donc nit ku nekk mën nañoo adhéré donc cotisation yi à l' époque bi gars yi cotisé ay ay millions ci organisation ñu ñu demandé rek cent mille francs cotisation. Hmm. donc loolu yëpp pour ubbi patronat bi ku nekk ku ci gis sa bopp. Hmm. ku nekk mën a dem fa la doy. donc des gens sont venus beaucoup ñëw bokk si MEDES ndax adhésion bi yomb na bokk patron bokk ci yomb na parce que amul benn condition bu jafe bu difficile bu ñu lay lan mooy intérêt wu entreprise yi ñu ànd def def def say. xam nga dañ nekk seen mbooloo. Hmm. syndicat yi dañuy def ay dañuy def ay hmm. pour défendre intérêt travailleurs yi. Hmm. di corporation. ñun itam dañoo donc fokk d'abord ñu bokk nekk benn. xam fa ñu jëm. ñu jéem a pour egg foofu mhm. donc d'abord ci dëgg bi dafa nekk organisation professionnelle syndicale mhm. parce que ñun aussi dañuy am ay ay ay ay ay mhm. am ay doléances dañ am ay difficultés ñu bëgg waxtaanee ak ak ak ak nguur gi ak ñu ko seqal donc foog ñun aussi ñu am occasion parce que mën na taxaw mën a waxtaan ak aussi travailleurs yi yi liggéey entreprise yi. Mm. donc loolu mooy solo d' abord organisation au départ défendre suñu intérêt ñun aussi en tant que entité ndax day am na mm. donc mooy njëlbeen gi mooy loolu ci lopp naa mooy fexe dimbalante jàppalante. Mm. ba ku nekk si si ñun mën a développer normalement dans de bonnes conditions ñu mën a ah, donc servir euh, réew mi. ndax lu kenn man séparément fukk ñoo ko dàq suñu booloo. dëgg la donc loolu daal moo indi organi créer organisation donc euh, parce que bi ñu woowee tey mhm. alors MEDES bi mu juddoo lan moo nekkoon ay priorité am ay ay combat yu mu doon mëne euh, pour que peut-être euh, gën a améliorer nekkinu patronat bi wala yenn chef d'entreprise yi surtout les jeunes. d'abord bi ñu juddoo. Euh, président MEDES donc di président Mbagnick Diop li mu njëkk wax mooy ñun Sénégal fekk nañ fi entreprise mais en général entreprise ndaw yi ak yu diggu dóomu yi amaguñu baat donc ñun nañ privilégier d'abord PME PMI nekk seen porte-parole ndax PMP mi fi nekkoon ñu ngi woon ci yenn organisation yi ki nga xam ne ñi ko dominer mooy grande entreprise yi donc seen baat du mën a donc ñu ne ñun dañuy organisation boo xam ne de manière spécifique day toppatoo essentiellement intérêt de la PME et de la de la PMI d'abord en face de de l'État discuter de questions économiques avec l'État revendiquer suñu suñu suñu suñu place maanaam suñu toogu ci économie bi bëgg aussi ñu ñuy boole fa ñuy nasee ak fa ñuy noccee donc pour ñu taxawal fa essentiellement PME PMI donc loolu euh, moo nekkoon suñu bébét bi ñuy créer bi créer entreprise yokk ci nag jàppalante ñun si suñu suñu biir jàppalante bu baax a baax a baax a baax dimbalente lépp loo xam ne man mën naa ko di ko def di ko liggéey boo ko entreprise ak keneen ku nekk sama wet mën ko di ko liggéey moo jël ko dénk ko kook kooku lu muy deflu ci ci entreprise loo xam ne man mën naa ko def dañ bokk ent bokk mouvement bi mu denk ma ko donc joxante ay liggéey. dimbalante joxante liggéey d'accord oh, d'accord waaw bu dimbalante ba ku nekk mën a gis sa bopp ci mouvement bi. Hmm. d'accord donc MEDES noonu noonu lay fonctionner. waaw euh, euh, ah. alors euh, MEDES aussi particularité mooy dafa am ay concept yu mu créer yu hmm. bare bare bare bari euh, bokk na ci surtout bi gën a siiw tey muy euh, forum du premier emploi avant forum du premier emploi am na yeneen concept yoo xam ni lancé ngeen ko ñu seetlu aussi benn euh, ndimbal loo xam ne toujours yéen a ngi koy yëkkati di ko jëmee ci ndaw ñi est-ce que mun nga ñëw ci li waral ngeen di doxalee noonu li motiver surtout création yooyu yooyu concept bala nga ci ñëw peut-être benn par benn waaw parce que dañu taxaw seetlu ñu d' accord syndicat lañu nag d' abord pour défendre suñu intérêt mm. loolu moom mooy suñu objectif premier waaye nag dañu war aussi réfléchir ci li nga xam ne mooy problème réew mi yëpp lu nekk ñu dugal suñu loxo ca lañ ca man lu nekk ñu dugal suñu loxo donc dañ ko war a du nekk rek pour ñun défendre suñu intérêt bopp mais nañ xool aussi li nga xam ne njëriñ li romb nañu bay law ci couche sociale yëpp ci jigéen ñi ci mag ñi ak ci ndaw ci te jamono yooyu ñu créé MEDS ñu ko seen dafa amoon problème boo xam ne Sénégal yëpp ñu ko doon jooy ndax dafa daroon tar dëgg mooy question liggéey emploi et que ndaw ñu bare bare bare bare bëri ndaw ñu am diplôme ndaw ñu ko amul ndaw ñu am formation ndaw ñu ko amul sakk nañ lool ci réew mi te liggéey daal nekk ne loo xam ne dafa jafe lool ba nekk fléau te ñu xam ne liggéey moom mooy goreel jaam doomu adama bi liggéey mooy tax ñu ñu fonk la liggéey mooy tax ñu teg la sa sa place donc ñu ne donc xoolum liggéey bi ban contribution lañ ci mën a indi donc ñu réfléchir ba finalement le président bañu Diop proposé concept forum premier emploi forum ndaw yoo xam ne dañuy nekk dañuy toog pour jéem a dimbale ndaw ñi pour ñu mën a am ñu mën a am xëy donc foofu war nañu euh, delloo njukkeel donc foofu président Mbagnick Diop mhm. parce que moom moom moo invent moom moo moom moo moom moo moom moo concevoir concept forum mhm. premier emploi mhm. mi forum boo xam ne fi mu nekk nii ça fait vingt deux ans ñu koy organiser at mu nekk te at mu nekk ñay bokk day gën a day gën a day gën a bari. ay junniy junniy xale yoo xam ne fii mu nekk nii am nañ xëy ci Sénégal xa xëy ma ña ngi ko amee ca ca forom ci ci forom boobu. Hmm. ba fii mu nekk nii forom emploi yëpp ñuy def Sénégal bari na ndax ndax dañoo bëri ay ay ñoo xam ne dañuy roy mais ñu roy ñëpp jéem ko si sotti. Hmm. ko defee benn at ñaari at hmm. ñaar. ñu ngi koy organiser at mu nekk te at mu nekk maanaam succès ak résultat bi day gën la la woon hmm. donc fi mu nekk nii boobu concept ñëpp xam nañ ne c'est un concept utile aujourd'hui et les jeunes attendent impatiemment chaque année ñu créer forum bi pour ñu ñëw jéem a am euh, xëy ndax ci boobu la ñuy def fan la ñaari fan hmm. ndaje ndaje ñi nga xam ne ñoo am koom-koom di recruter ak ndaje ñi nga xam ne ñoo nekk ay xale am lijaasa di wër liggéey te amaguñ ko ñu boole leen ñu toog waxtaan ku nekk seet li nga mën a am ci sa ci sa ci sa morom. bii mujj rek te ñu defoon ko weer yii weesu euh, am na am ci loolu ndaxte gis nañ ne entreprise yu bëree bëree bëri euh, euh, ñëw nañ bëgguma leen lim. Mm-hmm. pour bañ a def waaye ñu bëri ñoo nañ fi ñu bëri jël nañ fa ay ay ay ay xale. Hmm. ñu am embauché nañ fa ñu xam ne fi nekk nii ñu ngi ñu ngi liggéey. Hmm. démb rek lañuy ñuy dem visiter benn entreprise fii au Sénégal qui a première sur mu ñuy remercier ne jël naa soixante personnes ci forum bi soixante yooyu yëpp vraiment fii mu nekk nii ñi tàmbali ñu daal. Euh, am nañu satisfaction seen seen seen liggéey. Hmm. donc muy fonds boo xam ne ñun moom dañoo ñoo ñor ndax euh, dëkk li koy solidarité. ñi nga xam ne yàlla dimbale na leen ba ñu am as tuut dañu am kas néew ñu jéem ci sàkk bokk ak ñi nga xam ne ñoo bokk réew mi ndax man man mënu man fii maa ngi gestu gis koo xam ne amul liggéey gis koo xam ne ñu ngi xiif koo xam ne amul dëkkuwaay bu baax man man mënumaa bëgg nit nit ko warta warta a bëgg parce que moom am naas lëf fekkee ñu ko wër ñëpp amuñu am amuñu moo tax ñi kas néew chaque année ñu génn ci organiser forum bi forum bi kenn du fay dara kenn du fay dara mm-hmm. frais yëpp ñun ñoo koy jël en charge ça fait des millions at mu nekk woo nit ñi woo xale yi invité entrepreneurs yi pendant deux jours jël lépp en charge pour rek dimbale xale yi pour ñu mën a am ay xëy. Mm-hmm. kooku mooy suñu premier concept. bi mu ñu mm-hmm. ah Sénégal aussi am nañ ndaw yoo xam ne ña nga ña bitim réew. Mm. di fa liggéey ci ñoom. am na si ñoo xam ne am nañ koom-koom bëgg nañoo ñëw Sénégal investir fii mais xamuñu fu ñuy jaar xamuñu bunt bi pour ñëw investir au Sénégal donc at mu nekk nañ tànn benn réew bu bëri ay immigré ñu dem fa def fa li ñuy woowee diaspora des affaires maanaam dajale immigré yooyu yëpp benn place ñu xamal leen Sénégal li nga xam ne mën na dox jamono bu nekk xamal leen aussi si ku ci bëgg a liggéey ku ci bëgg fi ngay jaar ak ni ngay def. su defee ñoom ñu am pour mën a éventuellement choisir ñëw investir ci réew mi koo xam ne amul information du mën a décider de façon de de efficace. donc ñuy on a dans plusieurs villes du monde def nañ ko Paris ñu ko njëkk a defee. ensuite def nañ ko Barcelone def nañ ko Bruxelles. def nañ ko Genève def nañ ko New York fu nekk def nañ ko fi gestoire des affaires e boobu gestoire des affaires ñoo def ba concept lii concept bu diis waaye nag ñu ne rek dañ koy def pour réew mi tax na fii mu nekk nii ay Sénégalais yu bëree bare bëri yoo xam ne ñu ngi investir bu am concept ci lañ xamee amee information yi ci lañ xam ne fi ñuy jaar ci lañ xam ne ñu leen jàppale ñu jàppale ba ñu ñëw Sénégal ba investir fi ba léegi ñu ngi fii di dundal réew mi dundal économie bi di créer ay emploi kooku kooku deuxième concept la. Hmm. troisième concept aussi boo xam ne créé créé nañ ko muy corridor. Hmm. ñëpp xam xam sax euh, corridor boobu ñëpp xam nga xam ne très prochainement. le 10 juin la ñuy def euh, prochaine édition bi corridor boobu aussi euh, concept la boo xam ne MEDES ñoo ko moom corridor dañ ko créer parce que dañu gisoon ne fii au Sénégal euh, ba léegi duñ xam peut-être ñu bëree bëri xamaguñu ñi nga xam ne ñoo nekk dans l'ombre maanaam kenn xamu leen kenn gisu leen mm-hmm. di liggéey ci économie bi di ci investir di jël ay risques di créer ay emploi pour pour pour nit ñi ñun nag jaaduñu léegi ak mu nekk hmm. ñu xool ñi nga xam ne ci économie sénégalaise xarañ nañ ci ñi nga xam ne entreprise yi nga xam ne ñu ngi ciy góorgóorlu ñu ngi créer ay richesse di créer ay emploi ñu sargal xool aussi ci domaine scientifique ñi nga xam ne kat dañu leen ràññee ñu liggéey liggéey bu mucc ay ñu sargal leen domaine culturel ñu xool aussi ñi nga xam ne vraiment dañ leen cee ràññee ci seen yëngu pour développer suñu culture maanaam suñu caada ñu ràññee leen donc boobu ba léegi at mu nekk dañuy dajale gota le gota vraiment du Sénégal dajale autorités yi opérateurs économiques yi euh, invité ay étrangers yu ñëw jóge États-Unis jóge France jóge yow euh, ma waa en Afrique tout ñu ñëw devant ñoom ñëpp ñu def fête bu rëy pour en tout cas distinguer ñi nga xam ne parmi nous les Sénégalais ils font partie des meilleurs ñu distinguer leen mm-hmm. aujourd'hui boobu distinction Côte d'Or c'est aujourd'hui euh, euh, la distinction euh, la plus importante pratiquement donc en tout cas la plus valeureuse donc parmi les cérémonies de distinction qui s'organisent partout en Afrique. Mm-hmm. donc concept dañu bari. Mm-hmm. ñu jigéen ñi mais jigéen ñi aussi jàmbaar lañ donc nañ fexe aussi bëri ay entrepreneur jigéen donc ñu créé benn branche ci MEDES bi ñu tuddee CFD collectif des femmes du MEDES ñooñu dañ koy créé ko c'était pour attirer d'autres femmes aider des femmes les encadrer et les autonomiser kooku aussi depuis lors donc boobu boobu concept ñu ngi dox concept yi daal mën nañ lim yëpp ëpp nañ fukk xam ay concept la ñoo xam ne defuñ ko pour ñun suñu bopp pour pour autosatisfaction mais dañ koy def tout juste pour aider en tout cas pour pour aider hmm. une partie de nos nos concitoyens en tout cas à se développer à s'émanciper à se prendre en charge hmm. mais aussi pour appuyer les politiques nga xam aussi état bi nga koy def. Mhm. pour euh, yokk xëy pour yokk seen koom-koom. Mhm. pour gën a dabu seen euh, seen bànn. Mhm. Euh, donc c'est pour dire que daal MEDES en tout cas sous l'égide de ses dirigeants notamment le président Mbagnick Diop. donc vraiment ñun am nañ conscience de suñu nekk du nekk rek du nekk rek investir dafa wut ay marché wut ay profit. C'est normal, c'est ça notre, notre, notre, raison d'être en tant qu'entreprise. Mhm. c'est investir gagner des marchés avoir des profits. Mhm. waaye nag dañu nekk loolu duñ ci yem. il faut aussi ñu aussi ay action sociales actions yoo xam ne c'est les actions qui ne son pas forcément à but lucratif. Mhm. action actions yoo xam ne dafa nekk simplement ay actions d'engagement patriotique au service. réew mi ak aussi si ñu bokk réew mi suñu suñu nawle suñu mbokk sénégalais waaw ah, voilà un peu ce que j'ai publié sur les ci ci wetu CFD kuréelu jigéen ñi seen concept bi mujjee juddu euh, salon des startups ngeen di ci dajale ay ndaw yoo xam ne ñu ngi doog taxawal ay entreprise bëgg entreprise yooyu juddu tey rek euh, euh, mun a éclore mun a mun a jëm ci kaw euh, am ngeen aussi kuréel goo xam ni moo dajale jeune entrepreneur yi si biir MEDES cercle des jeunes entrepreneurs boobu foog naa ne moom moo ñëwaat mooy première dénomination MEDES bi hmm. pourquoi tey ngeen sentir besoin wu appuyer les jeunes surtout vers l'auto entrepreneuriat inciter leen ci ñu taxawal seen ay kuréel xam nga fi mu nekk nii l'économie numérique s'impose et s'impose de plus en plus mm-hmm. euh, xarala yu bees yi fi mu nekk nii daanaka su fekkee ne amoo ci xam-xam amoo ci man man doo mën a dem fu sori te dañoo gis ne beaucoup de jeunes ay xale yu bare bare bare bare bëri am nañ ay idées novatrices am nañu génie maanaam am nañu xareñ bu hmm. yaatu bu ñëpp reconnaître mais léeg-léeg dañuy manqué encadrement manqué moyen ne donc il faut ñu def benn salon salon boo xam ne euh, bu njëkk euh, salon boo xam ne mooy salon de start-up donc dañuy lancer concours chaque année pour xale yi am ay projet hmm. projet innovant ku nekk proposer sa idée de projet ku nekk proposer sa idée de projet ñu ko ko ñu bëgg bokk donc ay centaines de jeunes dañuy envoyé ay projets yu ñu concevoir yu ñu élaborer suñu xoolee projet yooyu ñu fekk ci ñoo xam ne projet yu baax la projet yoo xam ne projet yu mën a am njëriñ la pour mun naa am na boroom projet bi am na xalaat bi am na xel bi am na idée yi mm-hmm. waaye amul moyen mm-hmm. mettre ko en œuvre mm-hmm. amul xaalis pour mettre ko en œuvre en un mot dañuy sélectionné ci projet yooyu projet yi nga xam ne jàpp nañ ni projet yu baax la jàpp nañ ni projet yii suñ ko taxawalee ci réew mi dana amal njëriñ réew mi amal njëriñ borom projet bi amal njëriñ nit ñi ñu tànn leen suñu tànnee ba pare ñun ñu jox financement de départ. Hmm. pour ñu tàmbali seen projet woon mu nekk dañ tànn au moins au moins trois à quatre projets yoo xam ne ba cinq projets yoo xam ne MEDES moom moo leen di financer moo jël xaalisam. Hmm. pas lebal leen ko. Hmm. mais may leen ko. d'accord baaxee leen ko pour ñu mën a tàmbali seen seen seen seen projet boobu. ak mu nekk nag ñu def ko. te aussi gis nañ ne lu am njëriñ la parce que at mu nekk am ci am ci ay projet yoo xam éclore mhm. projet yoo xam ne day day day day day day màgg mhm. rapidement d'ailleurs et puis di jouer bi important ci ci ci pays bi moo tax ndaw yooyu mën recruter seen yeneen morom voilà seen seen yeneen morom mhm. donc loolu euh, aussi projet la suñu concept la boo xam ne vraiment mm-hmm. activité boo xam ne am nañ ko te dañ ko fonk aussi mm-hmm. di ko jagleel ndaw ñi mm-hmm. a aussi la version internationale des CORI mooy African Leadership Awards ah, ah, ngeen ngeen léegi nag nag léegi du ñu yam rek ci si si si si corridor corridor dafay nekk corridor pour réew mi pour entreprise réew mi waaye nag nañ def léegi nag benn CORI international boo xam ne day nekk genre jongante entre entreprise africain yëpp moom la ñu wooyee à la Leadership Award donc nga xam ne dañuy tànn ci Afrique ay doomu Afrique ay entreprise africaine yoo xam ne ñoom dañoo liggéey liggéey ba am solo bi ñëpp ràññi leen ñu naan gàcce ngaaraama ñoom itam ñoon dajale chaque année ci benn dëkk duglu Sénégal pour sargal leen euh, bu mujj bi ñu ngi ko defoon euh, New York hmm. mooy bu ren bi mois de avant ça def nañ ko Paris aussi Afrique def nañ ko Paris te it aussi beneen yoon dañuy dem beneen dëkk aussi euh, def ko fa hmm. dajale africain yi nga xam ne ñu ngi ci koom-koom africain yi nga xam ne dañuy yëngu daal le domaine financier ñi nga xam ne dañuy yëngu dans activité stratégique hmm. te am ci xereñ ñu ràññee leen ci pour ñu jaajëfal leen aussi encouragé leen moo suñu leen di woo di leen jox yooyu di jox raaya maanaam benn décoration hmm. raaya boobu nag c'est pour soo ko amee nga xam ne kat fi mu nekk ni amatoo droit dellu ginnaaw di nga am droit rek moom mu jëm ci kanam hmm. comme ça nga nekk exemple nekk modèle pour ñëpp ñoo xam ne dañu nekk ci réew te yëngu ci ci économie. Hmm. donc kooku aussi euh, concept la boo xam ne am na solo lool. te ñu bëree bëri bëri naw nañ ci Sénégal naw nañ ci MEDES naw nañ ci it président euh, du MEDES. Hmm. Euh, Mbagnick Diop ñi nga xam ne concept yooyu. vraiment moo ko toujours toujours moo koy moo koy proposé au MEDES MEDES nangul ko hmm. concept yooyu ndax mi day day am njëriñ pour pour pour réew donc loolu lu am solo la aussi. Mhm. suñu conceptuel nga xam ne dañ koy def pas pour ñun rek. Mhm. mais dañ koy def toujours parce que dañuy xool intérêt réew mi xool naka la ñu mën def ba dimbale aussi ñeneen ñoo xam ne. Mhm. dañoo bëgg def na ñun créer entreprise pour pouvoir euh, se développer et développer le pays. Mhm. fàttali ne euh, prochaine édition bu corridor euh, la dix-huitième précisément euh, yéen a ngi ko jàpp samedi 10 juin 2023 thème bi di la persévérance alors ah. MEDES persévérer aussi ci di xalaat di jox kilifa réew mi ma bugg a ñëw ci seen concept bi di concept bi di les assises assises yi ngeen di ko amal di ci tànn toujours benn thème waxtaanee ko muy méngoo nag ak tolluwaay réew mi wala tolluwaayu àddina la ngeen cey jukkee ci ay xalaat ngeen di ko jox kilifa yi mu nekk benn genre contribution kon di def ci wàllu réflexion euh, surtout axée sur l'économie du pays et du monde mm. disons. Mm. Absolument, nous avons dit que tout simplement normalement dans un pays quand l'entreprise va bien le pays va bien. Mm. Quand l'entreprise va mal le pays va mal. Mm. Donc lépp loo xam ne politique publique xam loolu état bi la war moo koy définir moo koy mettre mettre en œuvre. Mm-hmm. war nañ cee boole entreprise privée yi. réflexion stratégique ñi ñuy def pour définir politique publique yi ñu ne am nañ ci wàll war nañ ci joxe suñu xalaat. Mm-hmm. war nañ aussi suñu gisee dans l'économie loo xam ne important la. Mm-hmm. ñu daje ci xalaat ci wax ci. tënk suñu xalaat jox ko njiité réew mi hmm. ak gouvernement pour ñu ne que daal li li question c' important nañ ci bàyyi xel wala liñ ci xalaat hmm. donc boobu léegi at mu nekk ñu créé les assises économiques du MEDES mooy assise économique moom mooy dañuy jël benn thème ne thème bii ren moom la ñuy waxtaane moom la xalaat xool liñ ci liñ ci liñ ci jukki ci xalaat bi ñu jox ko ñi nga xam ne ñoo ji ñoo réew mi te nag assise économique yooyu bi ñu ko defee ba léegi daanaka amul benn thème bu am importance boo xam ne waxtaan ñu euh, day sax quelque fois sax dañ koy dañ koy def bien avant thème bi nekk sax actualité aujourd'hui ñëpp a ngi wax affaire intelligence économique aujourd'hui c'est devenu la mode, c'est devenu aujourd'hui euh, un thème majeur, donc un thème majeur, euh, c'est devenu euh, d'un intérêt stratégique euh, évident. Nous, déjà, il plus de 15 ans, 15 ans, lañ ci defoon déjà ay réflexion yu am importance woo spécialiste bu mag bu ñu woowee Amath Soumaré mu ñëw defal ñu ci ay ay waxtaan discuter ci ak ñun. ba ñu jukku ci ay ay ay conclusion jox ko lii dafay loo xam ne ëllëg économie ëllëg képp koo xam ne nekk ko ci nekk jëloo ko en bi dana suux donc ce pays ce pays ce pays dana suux donc voilà ce qu'on en pense personne n'a parlé aujourd'hui c'est devenu un thème d'actualité sur les questions de l'énergie def nañ ci ay xalaat proposé ci aussi à l'époque beaucoup de solutions sur les euh, questions relatives au cours des investissements xalaat nañ wax ni ñun jàpp nañ ne lii mooy mooy mooy li gën ci entreprise bi lii mooy li gën ci Sénégal hmm. donc amul benn aspect économique benn aspect boo xam ne xalaatuñ ci rek pour nekk état bi hmm. ñun de lii mooy suñu xalaat ci aspect bi hmm. dañoo bëgg ngeen tenir ci en contre su ngeen su ngeen di élaborer les plans de développement ak le politiques publiques de développement donc ñun dañuy jouer suñu rôle suñu rôle d'abord en tant qu'entrepreneur mais aussi dañuy jouer suñu rôle en tant que conseiller auprès des autorités de l'État mmh. en donnant des conseils en proposant des solutions à des problèmes mm-hmm. dañuy nekk aussi statut d'alerte suñu gisee aussi aujourd'hui économie mondiale jël benn direction te Sénégal jëlee ko boobu direction bi gis na ay paradigme nouveau ñu ngi commencé apparaître ci gestion économique mondiale dañoo euh, attention question bi question bi question bi c'est des questions importantes d'avenir donc il faut dès maintenant ñu di ci di ci réfléchir di ci gëstu donc vraiment ñun loolu aussi dañ koy def assise nag yi nga xam ne moom la ñu organisé donc ci. assemblée générale ah, ah, ah, voilà assemblée générale bi ñu bi ñu mm. mm. donc boobu assemblée générale moom mooy déterminer nag at mu nekk programme yi nga xam ne dañ koy dañ koy tëral. Mm. concept nga xam ne dañ koy dañ koy développé. Mm-hmm. ak seen seen agenda pendant pendant année bi donc ñu du improviser. Mm-hmm. du ñu koy. programmer démb mm-hmm. waaw démb déjà beaucoup. activité yi xam ne dañ koy def ca at mi hmm. xam nañ ko déjà programmé nañ ko déjà o commencé di ci liggéey parce que ñun euh, li xam ma hmm. organisation et méthode hmm. soo gisee tous nos concepts bañ bañ ci concevoir at mu nekk même époque lañ dañ koy organiser ak mu nekk nag duñ ko duñ ko organisé tey bàyyi quatre ans organisé benn bàyyi cinq ans benn. Hmm. def di au au gré. Hmm. <laughs> du vent ñun dañu plafonné yëpp ce qui fait que tous nos concepts de manière régulière. yu hmm. dugg de manière régulière at mu nekk même époque même période. dañ dañ ko dañ loolu déjà c'est un signe de de de constance. c'est un signe de de de sérieux. Ah, c'est sérieux. C'est une qualité. Mm. Que de pouvoir dire que voilà le chemin que je me, que je me trace, le chemin de Moko, de Moko Wati. Mm. À mon nec, même, même chose, Sénégal, en général, loolu parce que loolu parce que amuñu amuñu boobu esprit de suivi. ñu ne mais aussi yàlla dimbali nañu ba euh, ça nous le devons à la vision d'un homme. gis-gis ak jikko ak caractère nit. Hmm. donc euh, président Mbagnick Diop. Hmm. ba lépp loo xam ne gëm na ko ba dugg ci en général at bu ñu nekk suñ demee ba egg fa rek ñu ñu organiser ko. Hmm. loolu aussi suñu fort la mooy dañu dañu régularité dañu dañu dañu régulier régularité moo am solo ci lépp loy def ak constance loolu moom mooy moom mooy moom succès ak efficacité li ngay def na nga ciy régulier na nga ciy constant quand tu le su yàggee nga gis nga gis nga gis nga gis nga gis ki mais tey nga def naa su ba nga bàyyi soo jëloon tey bëri ko ndox bu hmm. fees nga tuur ko benn tey moitié bi hmm. tuur bi demee tuur kii après demee ndox mi dee wala ngaan rek soo fompee dootoo gis hmm. mais soo jëlee bëri ko nga juutal ko bënn ko muy toog rek toog régulièrement ci karo tip tip tip régulièrement ak kàlla kàlla bu bënn. waaw même ko ndox bi soo ko téye ba ñu doo gis dara. Mm-hmm. soo ko téye deux deux trois pas doo gis dara mais soo ko tax soo ko soo ko dafay muy toq par benn ndànk-ndànk. xam mm-hmm. ci bu ñu toq benn yoon. Mm-hmm. balay am ay rek kàlla bënn. waaw liggéey noonu la mel soo régulier soo constant yi li ngay def fokk nga ci résultat. te ñu heureusement. Euh, MEDES euh, am na boobu yooyu qualité. Hmm. parce que en fait euh, son président a ces qualités là donc très constant très régulier hmm. dans ses actions hmm. donc yooyu qualité nag fexe na ba ba yóbbu ko ci waaw régularité boobu di feeñ itam ci seen rencontre yi ñu tuddee les mercredis du MEDES. lan mooy solos ndaje yooyu puisque yéen a ngi def yeneen rencontre euh, voilà lu mel ni age bi di ci programme lépp. pourquoi en plus de ça ngeen yëg euh, nécessité wu def lu ñu naan les mercredis du MEDES muy am aussi régulièrement waaw xam nga AG bi une fois par année la or mercredi MEDES bu njëkk dañ ko def d'ailleurs chaque quinze jours hmm. léegi pratiquement c' est chaque mois hmm. ñu jël benn mercredi xam ñëpp xam nañ ko mercredi may des ko defee entrepreneur yëpp ñëw suñ ñëwee waxtaan li waxtaan nag moom mooy d' abord information hmm. yi ñu am économique importante ñu partagé ko deuxièmement aussi li nga xam ne mooy question d' ci réew mi aussi ci question yoo xam ne daf ñoo intéressé interpréter ñu mm. discuter ci wut ci position mm. wut ci wut ci wut ci ay xalaat suñu dajee aussi entreprise bu nekk li nga xam ne ci ngay yëngu la ca jafe ak la ca yomb mm. nga informer ñeneen ñi te xool ñu ñu lay jàppalee ba ba génne la ci dafa nekk en fait réunion yoo xam ne réunion de de suivi la réunion de suivi fonctionnement suñu entreprise nekk ci ci ci bi biir MEDES. Mhm. et chaque mois un mercredi dañ koy tenir. Mhm. et ça aussi je dois dire que dafa régulier. Mhm. ba tey depuis depuis depuis depuis vingt ans depuis vingt ans nous tenons ces mercredis du MEDES léeg-léeg aussi ñu am koo xam ne kilifa nga kilifa politique nga kilifa économie nga kilifa aada nga euh, kilifa caada nga. donc ñu invité la ci mercredi que ñu waxtaan ak yow ci ci ci ci sa sa domaine pour gën am information pour gën xam xam domaine bi donc personnalité yu bëree bëree bëri bëri sénégalaise et étrangère mm-hmm. internationale jaar nañu mercredi du MEDES pour échanger ak discuter ak waa ak membre du MEDES mm-hmm. donc loolu aussi c' est une activité boo xam ne dañu koy def qui une activité de euh, de, de mise a niveau une activité en tout cas pour relever hmm. le niveau d' information et le niveau de compréhension de la dynamique d' évolution du monde ñu ciy nemmeeku aussi adhésion yu bari ça veut dire que MEDES mouvement la buy dund buy màgg chaque mercredi pratiquement am na adhésion ay yu bees ay entrepreneur yu bees créé hmm. entreprise bokk ci kuréel bu mel pour d'abord euh, jàng fa informer fa mais aussi pour mu pouvoir bénéficier en tout cas des des possibilités yi nga xam ne Modesty Modesty da koy offrir entre entre hmm. entreprise ce qui fait que chaque mec chaque mec mec du Modesty dañuy enregistré ay ay adhésions euh, nombreuses hmm. aujourd'hui euh, nous pouvons dire sans nous tromper que le MEDES moom moo nga xam ni moo ëpp ay membres PME PMI donc ci organisation yi donc fii ci fii ci Sénégal. MEDES mhm. itam taxawal depuis 2017 li ñu naan FOGASIM euh, fonds euh, de garantie euh, du cercle des investisseurs du MEDES ku nekk xam na ne tey entreprise yu bari problème mu garantie la am peut-être suñ bëggee souscrire ci yenn marché yi lan mooy FOGASIM ak lu tax MEDES itam taxawal ka xam nga boobu question importante ndax xam nga entreprise dafay dafay dafay liggéey dafay investir te très souvent entreprise bi amul moyen capacité investir sur sur fonds propres hmm. donc day soxla banque bu ko accompagner bu ko gunge hmm. donc banque yi ak entreprise yi en fait dañ war nekk ay partenaires hmm. te dëkk yi développé yëpp ak ñu nekk en émergence c'est parce que système bancaire bi day yombal accès crédit entreprise yi ci modalité prêt yi au Sénégal nag dañu am benn obstacle moom mooy euh, garanti parce que en général banque yu cëpp soo fa demee bëgg prêt dañ leen laaj soit garantie quelquefois sax sûreté réelle dañ leen laaj maanaam nga jël nga da lu dara teg fa kom comme comme comme comme comme hypothèque comme garantie loolu nag dafa nekk loo xam ne obstacle la mm-hmm. ndax soo bëggee leb ci banque yenn taux d'intérêt yi ñu laaj la garantie boo xam ne soo ko amoon doo soxla leb mm-hmm. parce que amuloo boobu garantie nga <laughs> amuloo boobu xaalis moo tax nga ngay lebi mm-hmm. te amuloo ko te tel soit on a vu que d'après les statistiques plus de quatre-vingts pour cent prêts yi ñuy rejeté demande prêts yi nekkul ne demande bi baaxul wala wala projet bi dëgërul mais dafa fekk ne borom projet bi amul garantie pour pour pour ñu pour ñu financer projet am. ñu rejeté ko loolu nekk un grand problème te am na pays yoo xam ne motif rejet projet yi. li ci ëpp nekkul ne amoo garantie parce que garantie bi euh, d'accord baax na mais c'est pas lu ëpp importance mais c'est parce que projet bi moo baaxul donc les gens rejettent les projets parce que ils sont pas de qualité et pas parce que amoo garanti mais su projet bi amee baaxee am qualité su ko su taxawee mën na générer xaalis bu bu bu mu fay boppam. Hmm. mais fii la Sénégal nag on rejette les projets essentiellement pas parce qu'ils sont bons pas bons mais parce que amuloo donc ñu ne donc loolu il faut ñu régler boobu problème ñu ne suñu biir nañ créé benn fonds fonds boo xam ne ñooy cotiser parce que mutualiser nekk un fonds boo xam ne day nekk fii suñu membre yi koo xam ne bëgg nga prêt pour benn projet pour investissement te ñu laaj la garantie te amoo garantie ñu jël ci boobu fonds comme ça nga mën jot jot jot ci sa prêt loolu mooy mooy moo wundu foog a le fonds de garantie des donc membre yi jox seen xaalis membre yi cotisé ñu créé boobu fonds loger ko banque partenaire ko defee su fekkee ne yow def nga ay demande de prêt ñu gis la ay garantie yoo xam ne romb na sa mën-mën amuloo nga mën a adressé sa mouvement mais des effectivement ñu xool dossier bi ñun tam suñu génne dossier sa projet bi kat bi baax la hmm. ku la jàppale ci fond boobu lebal la nga garanti hmm. kon daal MEDES égale solidarité voilà hmm. donc euh, très bien alors EG peut-être ñu jeexal ak seen perspective lan la ma MEDES ma lan moo nekk ci kanamam mu di ko wutali bon fi mu nekk nii euh, ñëpp xam nañ ne àddina bi taxasoo na y a des crises multiples qui a une crise économique. Actuellement, il y a une crise bancaire qui, qui, qui, qui est en cours, nous savons, États-Unis. Et maintenant, là, il y a la guerre d'Ukraine. Hein? Mm. La guerre économique russe qui aujourd'hui a des impacts qui dépassent ces deux pays. Mm. Impact yoo xam ne fi nekk nii dem na Europe dem na Amérique mi ngi suñu Afrique aussi mi ngi Sénégal. aujourd'hui tu as la crise de l'entraînement suñu environnement en Afrique fii tu as euh, aujourd'hui des menaces sécuritaires qui pèsent sur les pays notamment les pays du Sahel donc yooyu dafa nekk ay défis yoo xam ne dañ ko war a relever donc pour relever ko il faut que ñu ñëpp ñu jàppante oublier suñu intérêt personnel xool lan mooy intérêt réew mi lan mooy intérêt askan wi ñëpp ñu tënku ci ànd ci pour faire face au péril aujourd'hui qui menace euh, nos pays mm-hmm. mais des nag ci boobu perspective moom liñ ci am na ci am na ci taxawaay mm-hmm. taxawaayam moom mooy faire en sorte que suñu économie bi dox mm-hmm. c'est alerter quand a des, défis qui vont se à nous c'est agir aux côtés des autorités publiques pour faire face donc euh, à toutes les menaces d'où d'où qu'elles viennent. Mmh. C'est aussi insister inciter nos membres à investir. Mmh. Investir pour faire reculer le chômage. Parce que amul secret. Mmh. su fekkee ne amul investissement doo créer richesse. Mmh. soo créer richesse doo créer emploi. emploi soo créé wul chômage chômage chômage bi du du jeex. Mm. secret amu ci. secret amu ci. Mm-hmm. dafa am loo xam ne nag loolu boobu nekk ñun réew mi moo ñu moo ñu ñor. Mm. réew mi moo ñu soxal parce que réew mi mooy suñu patrimoine ñun ñëpp mooy suñu mooy suñu ndono. Mm-hmm. comme mooy nag dañ ko war a yaxanal dañ mm-hmm. dañ fexe mu ñoŋ pour fexe mu ñoŋ nag ñun na yénente jàmm di def jàmm di wax jàmm di wax luy defar di yëngu ci luy defar ak lu mën doon ñun daal loolu ma suñu taxawaay loolu mooy suñu philosophie jërëjëf mobilisation de tous au profit exclusif de la nation sénégalaise qui est au-dessus de tout de toutes les considérations. Mhm. jërëjëf mouvement des entreprises yi Sénégal boobu nag ñu doon waxtaanee tey euh, jàpp leen ni philosophie de base am euh, te sax mooy tey euh, li koy mandargaal mooy la ñu naan le pari de l'action mu tax nag kuréel gi am ndëgër laay lool ci li muy def mais aussi di ci wut saa su nekk ndam MEDES itam ñu mën a jàpp ne bu yegsee fi mu yegsi tey du hasard ni ko Albert Einstein wala Louis Pasteur doon waxee hasard moom ñi koy jariñoo souvent souvent mooy ñi nga xam ne dañoo pare euh, muy citation boobu le hasard ne profite qu'aux esprits préparés muy itam euh, citation bu euh, njiital MEDES faral di di di di jëfandikoo pour ñaax MEDES ci ne dañoo war a pare ba lépp lu ñëw mën leen a bañ a bett loola feeñ ci bi mbas mi amee li muy métti métti entreprise yi nekk ci MEDES am nañu ndëgër laay moo xam ni xëy na amul feneen loola itam di màndargaal lëngoo ak jàppalante bi nga junj sànq monsieur le secretaire général ci ci mouvement des entreprises du Sénégal ndax dañuy dimbalante ci seen biir euh, bu ko defee ñu am doole mën a dimbali ñeneen gis-gisu MEDES boobu ak taxawaayu MEDES boobu nag tey mën nañu jàpp ne am na lu baree bari lu mu joué surtout ci différence bi ñuy nemmeeku euh, ci mouvement bi bu ñu ko tëkkalee ak euh, yeneen mouvement ñaar fukki at ak ñett du ñaar fukki fan ak ñett loola itam di wone ni MEDES am na xëy na expérience ak expertise boo xam ne mën na ko indil Sénégal te loolu yaakaar naa ne itam yéen a ngi koy euh, yéen wone ndax bari na tey ci réew mi ay projet ak i taxawaay yoo xam ne bu sottee dafa fekk ne loxol MEDES mi ngi ci bu ko jiitewul itam euh, soobu na ci bu baax a baax te loola MEDES wéy di ci liggéey ndax euh, yàggul dara am na lu mu sumb ak ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur jëm ci wàllum diplomatie économique Sénégal naka lay def ba gën a wone boppam ci wàllu koom-koom ci bitim réew loola yëpp nag ñu ciy félicité waa ci félicité euh, seen njiit ñu ngi leen di gërëm li moo nekkoon seen émission démb ak tey waxtaane MEDES euh, mi am ñaar fukki at ak ñett euh, démb doon ko mandargaal ci seen assemblée générale bi gërëm itam jaawo jàllo mi nekkoon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi TV officiel ñu ngi leen di dig daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen ci démb ak tey di leen ñaanal kendal jàmm tey di leen ñaanal kendal ak jàmm tey di leen ñaanal kendal ak jàmm tey di leen ñaanal kendal jàmm tey di leen ñaanal kendal ak